comparution à la date du 6. Voilà. Donc euh, après, nous, nous avons plaidé une demande de liberté provisoire. Alors le tribunal a rejeté la demande de liberté provisoire et a confirmé la date et le motif du renvoi. Cela veut dire à la date du 6 octobre et pour plaidoirie. Non, non, on, a, avait plaidé la liberté provisoire, mais le tribunal l'a rejeté au motif que... Euh, au qui ont été avancés mais quand même nous avons nous prenons bonne note nous prenons acte c'est une procédure qui est en cours qui n'est pas terminée c'était juste une étape mais l'affaire revient le 6 octobre inchallah devant le tribunal des flagrants de Dakar et la partie sera là et on va plaider mais bien sûr les enquêtes quand on va devant un tribunal c'est que les enquêtes sont bouclées. waaw kon kon tey dañu dañoo ñëwoon fii euh, fekkee euh, audience Californie bi. Euh, man ah, ci avocat yi mu li koy layal laa bokk donc boo leen gisee affaire bi dañ ko renvoyé ba le 6 octobre li tax ñu renvoyé ko nag mooy partie plaignante bi muy partie civile bi ay avocat ñoo laaj renvoi laaj renvoi ba le 6 pour mu mun a teew waaw donc bi mu laajee ñun euh, na ñu ñaan wala sàkku pour ñu atte tey comme ça ku nekk xam foo féetee mais finalement tribunal may na leen loolu may na leen ba le 6 euh, octobre pour ñu ñëw ñu teew ginnaaw gi ñun plaidé nañu lu ñu tuddee liberté provisoire alors euh, on va euh, bu ñu demee le 6 incha allah danañ ko plaidé ku nekk xam foofu féete. jeudi la mbir mi am jeudi bi mu amee bi ñu xëyee vendredi bi dem na gendarmerie Wakaam samedi bi toog na seen kër dimanche bi toog seen kër. def li nga xamante ne mooy déclaration wax lu ko neex jeudi bi mu ne dafa feebar te li ñu gis tey jii mooy la 30 la ñu génne li di certificat médical dafa feebar ba ñu hospitalisé. Alioune Sall mi nga xamante ne moom moo woon gendarmerie Wakaam moom moo dem gendarmerie Wakaam moom moo ñu wuuse moom la ñu téye bu leen fàtte ne dafa woon ne Alioune Sall da ko yàkkantaan ci biiru otom ba résultat yi génn li mooy kër docteur génne ko ñu fekk dafa am ndawam maanaam ko ko kii di avocat am li nga xamante ne mooy viol dañu koy teg nee mais coup et homicide volontaire la ñuy wax bu leen dafa màtt Kaliphone Kaliphone dóor ko pour mu siggi yàq ay bagages su ki nga xamante ne mooy yaayu Adja Thiaré dóor ko Cheikh Ahmed Cissé dóor ko tey jii suñu justice suñu ñun ñii nga xamante ne ñooy xeexa suñu réew kenn duñu dara bu nekkee opposition la ñu koy lammi lammee di leen tiit di leen di yox yoxal Ousmane Sonko fii la violé ki nga xam ne mooy Adji Raby Sarr un an six mois à la justice tey justice bi nga xam ne moo jël ñu taxaw te tey justice boobu noonu moo bañ a jël ci Ousmane Sonko mu jàkkaaroo Adji Raby Sarr mu ko. mais mais mais mais mais dama la Kaliphone mu ngi fii Adja teree ñëw lan teree ñëw Adja Thiar Kaliphone jubum réew mi la moom moo wuyu te il est responsable majeur et responsable aussi. une mesure de mise en liberté provisoire mais le tribunal souverainement a décidé en fait donc de la rejeter purement et simplement au motif que ce dernier la gravité de l'espèce et au regard en fait de, de garantie de représentation a jugé tout simplement de renvoyer, en fait de rejeter la demande, de le maintenir dans les liens de la en fait, donc prison et éventuellement de la prévention et éventuellement euh, programmer son audience pour l'audience du 6, Inch'Allah. ñu mhm. koy tuumal eh, ki nga xamante ne mooy Californie mhm. la mel euh, doon li nga waaw en boo xoolee le parquet a ah! procédé à un règlement xam nga nit ki bu fekkee dañu dañu dañu dañu porter plainte maanaam parquet moom mu am sañ-sañu maanaam qualifié maanaam feeyi maintenant moom ci li mu jàpp mooy dafa li li li li liñ ko wan moom jàpp na ni li ñuy wax coup et blessure volontaire rek mooy li ci am te ci loolu mm. moo ci la sukkandiku ngir téye Khalifa Sall waaye ñun ñi xam ne ñooy toppee ak élément de preuve yu ñu am au-delà effectivement donc du règlement du parquet la loi nous donne la faculté en fait d'initier d'autres procédures parce que en droit il faut savoir que tout ce qui n'est pas interdit est permis. Et la loi nous donne la faculté, en fait, d'initier d'autres procès. Et d'ailleurs, nous n'avons pas tardé à le faire. Nous n'avons pas barguigné à saisir, en le doigt et des au fait, effectivement, de se prononcer sur l'agression sexuelle et éventuellement sur, effectivement, donc, la réalité de la séquestration de notre, effectivement, client. Parallèlement, nous avons vu que le sieur, effectivement, de la dame Adja Thiaré Diaw au fait de la diffamer, de jeter l'anathème effectivement donc sur elle, parce qu'elle aurait été présentée comme étant une, euh, donc une prostituée, une lesbienne. Ça, nous avons effectivement estimé que c'est une atteinte grave aux dispositions de la loi 2008 sur la protection des données à caractère personnel. Et nous entendons, dans les jours à venir, en fait, donc, euh, euh, faire une citation directe auprès du tribunal nag incha allah bu àggee ba ca biir euh, maanaam euh, procès ba loolu lépp dañ ko mën a leeral incha allah toutes les lois et règlements de cette république en fait donc moo tax du ma mën a dugg ci loolu li ma yoon tere li may yem mooy li xam ne texte si permettre na fii ma taxaw ak yow di wax ak yéen li ñuy wax l' article vingt six tiré deux de notre règlement intérieur moo ma may sañ-sañ ginnaaw bu ñu jugee ci ab audience journaliste yi interpellé leen a jox ay xibaar ngir ñu mën a informer l' opinion effectivement publique te loolu c' est très nit ñi di ko xam voilà